gis nga tunkara ci lañ ñëw dajji bunt bi forcé jël arm dañoo jël arme tiimale ko soxna sëñ bi ak man ñii di wax ak yow ñu tiimale ñu arme ne bu ngeen buusee dañ leen di rey yaa ngi dégg xola ñëw fii nga xam ne fii la sëñ bi di nekk mooy jàkkam fii lay jaam fii mooy bërëbu jaamukaay yàlla mu ñu ñëw toj bunt bi fekk ko fi muy ci fi muy sikare ñu jël ko yóbbu